nga xamante ni mooy Siteu ma lay félicité ci ndam li nga am di wax ne ñi nga xam ne ñoo dëkk jàmm gën di fa yeewoo seede yu rafet yu baax la ñuy wax ci sa ginnaaw yaa ngi leen di dimbali di bokk ak ñoom sa wërsëg di la wax ni foofu nga teg sa baaraam foofu la bu ko teggi mukk ndax képp koo xamante ni yàlla def na ci yow teraanga ak bu mu mën a doon nga di ko bokk ak say mbokk di ko bokk ak say dëkkandoo di ko bokk ak say jegeñaale ak képp ku la xam macha allah yàlla da koy gën a ful rek ñu ñaanal yal yàlla yokk la bu baax a baax ndaxte say dëkkandoo la ñu seede ci yow rafet na say mbokk itam la ñu seede ci yow rafet na tey boo toogee ci écran bi jàkkaarloog ñi la xamul na ngay waxee ak li ngay expliquer rek ñëpp dañu xam ne kii ku am yar la te koo ku rafet xol la te ku baax la kon nag ñu ngi lay euh, félicité bu baax ci ndam li nga xam ne moom nga am